xam nga léegi débat bi mooy ne ñu ne il faut que ñu organiser élection bi ñu def processus bi yëpp ba a génn le terme du mandat euh, du président de la République le le 2 avril ñoom xeltukat yi naan la nañ ko def le trois mars nañu nañu wàññi jour de campagne yeeg loolu léegi ban démarche lañ war a am est-ce que élection bi war na excéder Euh, la date mën na ko passé di dem. mën na passé di dem avril président Macky Sall des fi ba élection bi ñëw. ci lan la koy sukkandiku. moom laa la jox léegi nañ ko bokk jàng ma yow. ayca xam nga déedéet jëlal déedéet euh, constitution bi constitution bi. ah jëlal boobu mais damay jëkk tam. léegi nag may déglu nag. ma mhm. tontu la nag ngir yàlla. Mhm, dootoo posé di question fekk pare wu si réponse bi waaw. voilà léegi nañ jëkk a wax dara. damay dellu fi ma jógee léegi. Mhm. maa ngi wax de. ñi nga xam ne ñoo dem ci conseil constitutionnel dañu wax ne comme que perte na nañu ay jours nañu yokk jour yi ñuy perte loolu président Macky Sall bi nga xam ne conseil constitutionnel daf ko wax ne organiser élection yi ni mu gën a gaawee olof laay làkk dans les meilleurs délais ci olof mooy ni mu gën a gaawee nañ wax olof dans les meilleurs délais boo ko jëlee français am na ñaari interprétation mooy wax ma tey jii wax ma tey jii ban mooy bésu élection bi mën nañ ko gis noonu. mën nañ ko gisee ne wax ma bés bu gën a jege bu dee français boo koy firi olof laa wax mais nag bu fekkee ne olof ngay làkk da nga naan mu gën a gaawee gars dañ ko ne defal élection yi nu mu gën a gaawee parce que le 24 moom 25 février moom. jeex na defal nu mu gën a gaawee. léegi defal nu mu gën a gaawee boobu mënuloo liggéey lu dul si biir constitution bi mënoo def na neen constitution moo yore lépp. léegi na la constitution bi wax léegi nag dem ci constitution bi nañ dem ci article yi nga xam ne moom laa la jox mu ngi nii nañ jëkke article trente cinq mm-hmm. article trente cinq constitution bi troisième et quatrième paragraphe dafa wax ne mm-hmm. article trent cinq troisième et quatrième paragraphe dafa wax ne élection yi nga xam ne mooy élection présidentielle yi conseil constitutionnel di ko contrôler dafa am campagne si campagne bi dafa am contestation yu man a nekk. Mm-hmm. am premier tour daf si mën a am contestation yu si mën a nekk conseil constitutionnel wala àtte contestation yu bu amee deuxième tour mën na am contestation conseil constitutionnel wala àtte tam contestation yooyu ba ñu déclarer ne diw gañe na conseil constitutionnel buy wax buy régler contestation yooyu. mën na ko régler mën na sax annuler élection yépp ñu recommencer waat mooy ñetti paragraphe yi du constitution bi la mm-hmm. ak kan moo fi weddee ci constitution tey parce que constitution kan la ñu jariñoo pour annuler li Macky Sall def mm-hmm. mais lii kenn annulé ko constitution la kenn dindi ko fi ba tey léegi constitution boobu wax loolu daal di si teg la neen article 36 daal di ne le président de la république élu élu ka nga xam ne bu li ma wax yëpp jeexee bu li ma wax yëpp bu jeexee ñu ne moom la ñu fal léegi mooy le président élu il entre en fonction après après bu nu proclamer définitivement élection moom définitivement laa wax de li ñu wax yëpp bu weesee ba nu ko ne yow la mm-hmm. ba pare ñu boole si ki mu fi fekk tam mandaam jeex mm-hmm. bu loolu xewee léegi président de la république bi nga xam ne moo fi ne tey. Mm-hmm. mooy toog en fonction ba nu installé ki koy ut loolu la ñu bind. Mm-hmm. donc lii ñëpp dégg ci. le président de la République en exercice. waaw en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. xam constitution ko wax. Mm-hmm. waxul la neen waa léegi bu fekkee ne nag dañu jël li conseil constitutionnel wax ne 25 février mënatul nekk Macky Sall defal nu élection nag nu mu gën a gaawee. léegi ñu war a dabu semaine yi ñu perte yëpp war a def nag tout le processus électoral mais dinañ dépasser nu mu mënti demee le 2 avril ak nu mu mënti demee maa wax loolu. te ci constitution bi Macky Sall mais constitution bi pare yaa ko jàng mu ngi nii. dina fi toog légitimement mais yaa ko jàng bu ko waxati. Mhm. <laughs> yaa ko liiral àddina bi. yow mii yaa ko liiral àddina bi du man waaw bu fekkee nag li ñu nag li constitution wax dañ koy jariñoo bu leen neexee. li constitution wax duñ ko jëriñee bu leen naqadee man bokkuma si ñooñu xam ñan laa bokk bu ma nee xeex bu ma naqadee yëpp ñu war a ne moo fii ne ndaxte loolu mooy sécurité wu Sénégal. mais leneen luñ fi indi insécurité la si ko fi andi yaa tooñ. d'accord ci loolu la ñuy ñëw au nom d'un prétendu dialogue. waaw est-ce que le président de ak les candidats est-ce que il peuvent s'entendre. pour fixer des dates. pour fixer waaw, la des dates nu mu gën a gaawee peut aussi euh, raccourcir les délais. non raccourcir mënuñu ko pour tenir l'élection raccourcir mënuñu ko laaj ma lu tax. lu parce que c'est la loi organique sur le code code électoral moo fixe la durée de la campagne des deux campagnes donc ñoom mënuñu ko mënuñu ko ils sont obligés de saisir l'Assemblée nationale mu modifier la loi organique et la loi organique devra être soumise à la Cour suprême pour mu vérifier ko. une loi organique est obligatoirement soumise à la Cour suprême obligatoirement laa wax mu neex mu naqari. donc bu ñuy fixer la date de l'élection nañu dañuy tenir compte dama ne dañuy jël des jours francs ñoom nañu waxtaan nañu waxtaan waxtaan a jaadu waxuma dialogue de man moom boobu neexuma parce que mosuma si dem mosuma si dem xam naa la mu tekki mm. bugguma dugg nag si wax yooyu waxuma dialogue man moo dialogue intéressé wu président de la république dafa ma ay pouvoir ay pouvoir constitutionnel na ko exerce na ko exercer sa biir kër balaa ngay doxal yow da ngay laaj si borom kër waxtaan ak moom yenn saa yi waxtaan ak say doom man tam sama bopp exercice su pouvoir mooy waxtaan ak ñi la neex ak ña nga yaakaar waxtaan ak ña la neex ak ña nga yaakaar daal di dogal foofu la toll tollul benn niveau boo xam ne ni daf ko naan nii la par force moo war a seet lu ko doy si liñ ko digal nag parce liñ ko digal conseil constitutionnel moo ko digal c'est ça fait autorité nu mu gën a gaawee la ko wax yow nag yaa war a def nu mu gën a gaawee en tenant compte des difficultés que la constitution pose article 34 35 et 36 tu dois en tenir compte comme borom kër boo xam ne dépense am dafa manqué mu xëy suba bi xaalis joxe dépense. donc parce que ni ma wax leerul. leer na na lebi xaalis joxe dépense. mooy mooy dafay battre en brèche parce que maa ngi. dégg battre dara en brèche ñoom ñoo bëgg a battre en brèche article 36. non maa bañ nanguwuma loolu. <laughs> bul yàq sama constitution parce que lii moo nu fi teg non ñoo bëgg a battre en brèche constitution bi article dara en brèche dinaan le président en exercice. dara en brèche bu fi andi bu fi amul njëriñ. boo xam ne baaxul amul. waaw waaw maître ah, nag ma déglu la. parce que xam nga xam nga li ma lay wax nii yëpp. kees gi ma am sama diggante yow moo tax il ma déglu la léegi noppi naa. xam nga li ma lay wax nii yëpp. Euh, da nga nekk di indi réponse yu am solo si un débat politicien politicien boo xam ne ñu ngi ko jël di ko entretenir waaw mën nañu ko utiliser sax ngir yëng yëngal réew mi du ñu yëngal dara parce que newuñu ku ko mënti wax ak côté boo mënti féete damay dégg yaa ne si erreur ay candidats ay société civile ay xeltukat ñu naan à partir du 2 avril Macky Sall ne plus un président légitime waaw ma wax lu tax kaay ma wax lu tax ci encore nga baal ma de xam nga sànq wax naa ne dama judd ba tey ji di feebar rek c'est docteur damay jàng livre xam si tuuti mais du ma waxtaan ak docteur ba mu metti nag lu ma dugg li dugg si avion du jeex mais bu pilote bi wax ne eh, jàllal si ginnaaw sa toog da dem jàllal si ginnaaw sa toog seen xam moo manqué si lii nañu màndu li ma wax du olof lu hmm. ñuy politique jiituñu ma ci maa leen mag fuuf ñi nekk Sénégal yi di politique tey maa leen mag kenn ma si mag mu Moustapha Niass ku politique Sénégal tey maa la mag ku dul Moustapha Niass ku yore parti ku mu doon te yaakaar naa ne Moustapha Niass si boppam maa ko jiit si parti politique parce que ba may sànni xeer Lamine Gueye en 1950 51 52 j'avais huit ans góob ma defoon na ko. donc bu ñu kon boog dama ne légitimité politique kenn ëppale wu ma ko ci parce que faluwu ma si kenn faluwu ci légitimité présidentielle kenn la muy Macky Sall tey jii ëllëg keneen lay doon mais légitimité politique kenn ëppale wu ma ko ci. te li may wax dama ko xam. mais Macky Sall. léegi nag ma ne la ma la dañu jaawaatle ñaari ñaari notion. Mhm. loolu laa la bëgg expliquer mandat xam luy mandat. mandat mooy cinq ans yi bañ la falee ba nga prêter serment ba juróomi at yi jeex mooy mandat gi constitution bi moo ne mandat bi cinq ans la mais constitution yi moo ne bu sa mandat jeexee ka lay uutu feex toogul yaay toog waaye dañu mhm. bëgg ci. rek dañ jàngul constitution bi jox naa la juróomi at yow fii embauché naa la juróomi at mais ki lay remplacer feex ñëwul yaa fiy toog bu mu ñëw. du du préavis constitution la préavis mm. droit du travail la. Mm-hmm. constitution laay wax fi ma nekk préavis mooy koy dàq ci Macky kenn dàqu ko ba ñu ko dàqee mu dem. non ku war a dem. ah non du préavis. ku war a dem ku a c'est xam lu tax. ci ci droit du travail xam nga lu dafa am durée bu ñuy fixé par force c'est lii amul durée mooy feex waa ji toogul du mën a toog kon bu ko tuddee préavis. waa léegi yaa koy uutu boobu <laughs> yaay toog ba mu ñëw nga dëj ko fi. donc Macky Sall mën na mais dama bëgg nga jàpp ne constitution bi moo wax du. du doy d'accord d'accord dama bëgg dama bëgg ñu avancer tuuti mooy ah, article 36 bi. dañ ci agsi ah. mais balaa ñuy avancer man di avancer dama bëgg li ma wax mu leer na nañ. non li nga wax leer na li ma wax man. waaw ah. nga bëgg ko wax nga bañ ko. mu leer ne maa ko wax li nga wax leer na mu article 36 bi constitution bi moo ne. juróomi at yi président bi ñu fal la moom la am mais nag bu juróomi at yi jeexee te ki ko war a agsi ki koy remplacer ñëwagul daf koy téyel place bi mu tàng jëpp ba mu ñëw mu jox ko ko waa léegi amul keneen ku am pouvoir boobu ci Sénégal waa léegi constitution laa wax de léegi est-ce que retombé wuñu tamit ci même piège bi dafa ne kii bi conseil constitutionnel dafa ne président dans les meilleurs délais mu organiser élection dans les meilleurs délais waaw ça veut que bu acteurs yi déggoo dans le meilleurs délais mën na nekk en mai mën na nekk en juillet mën na nekk en décembre et donc le président de la République Macky Sall selon l'article 36 de la Constitution dafay toog ba ker baa ñu fal ki nga xam ne moom mooy le nouveau président élu waaw est-ce que loolu mais addina lu amul danger amul xam nga danger bu njëkk bi fu mu jógee assemblée nationale jóg ne damay def loi constitutionnelle pour <laughs> si article 103 xam nga kooku danger la ba ñu ñëw seeti conseil constitutionnel moom mu ne jël naa décret dàq naa leen si élection yi loolu ñëw wote ji xam nga kooku danger la parce que réew mi li fi xew gis nañ ko donc chef d'état bu mu doon si monde bi laa wax bu mu doon am na limite yoo xam ne moralam moralu boppam comme na mu defee woon discours àddina bi di ko tàccu mu ne man yaakaar naa ne mën naa def candidat troisième mandat mais duma ko def parce que sama réew nee na ma déet àddina bi nee na ma déet defuma ko xam nga kooku moral morale politique fondamentale la. grandeur grandeur la mais chef d'état day am grandeur. fi mu nekk li ko li ko conseil constitutionnel wax en disant que man conseil constitutionnel yaa ma fi teg parce que président benn président ko fi teg mooy Abdou Diouf donc c'est le président de la République yaa ñu fal yaa ñu nommé jox ñu pouvoir pouvoir bi dañ koy def pour l'intérêt général dañ koy exercer pour l'intérêt général dañ koy exercer pour la paix dañ koy exercer pour la stabilité et la continuité des institutions mu xëy suba ñu ne ko léegi organiser élection yi bu mu gën a gaawee mu ne maa ngi koy organiser mois de novembre prochain il viole tout ça. Hmm. sur le plan politique et sur le plan moral. il viole tout parce que politique morale la de attention politique du ñu bind rek de grandeur la de nit da ngay mat yor réew sa mat yor réew mooy da ngay màgg da ngay màgg nekk sa kaw. ba général de Gaulle di bàyyi pouvoir am bu ko neexoon du ko bàyyi mais dafa ne français yi. dama bëgg a décentraliser la France nga indi euh, ñi ko Mitterrand yëpp nag ah, non non non sa décentralisation baaxul mu ne référendum daal ne français yi ba leen watewul sama décentralisation bi ma bëgg def ça veut ko que wóolootu leen ma. damay bàyyi c'est dinaa si dafa ne dinaa si tirer les conséquences waxul ne damay bàyyi dafa ne dinaa les conséquences mais bañ ko wateelul <laughs> wan ne leen conséquence bi mooy wóolootu leen ma dem na ba tey ñëpp ngi naan ñëpp ngi naan De état grandeur la état c'est la continuité. du ko def góob mu def loolu. non waaw c'est clair. ak li mu taxaw ne li conseil constitutionnel wax laay def du ma ko wax. du ma ko wax loolu lay def. seen na ko def nu mu gën a gàtte mais nag waxtaan dafa baax ak ñoñ yi ak candidat yi parce que candidat yi seen bopp ñoo ko demandé mu ngi nii ñu bind. donc war na waxtaan ak ñoom ñu seet date yi nga xam ne mën nañ def campagne 21 jours. mën nañ def lii mën nañ def lii mën nañ def lii nu mu gën a gaawee mu lancé ko. léegi le 2 avril. dara du xew mooy président. waaw d'accord tontu naa la. mais le 2 avril. 2 avril bokkul. waaw 2 avril le mandat bi jeex. mais il assure l'intérim ba kër gi ki ñëw ko.